la ilaha illallah la ilaha illallah rahmatullahi ñi ngi nuyu bokk yi ñuy teewlu yëpp ci turu jëwriñ yi nga xam ne ñoom la ñu taxaw muy ñuy sunuy kilifa ñu teew fii si ndigalul sëriñ Amdi Fall moom sëriñ Modou Mbenda di jëwriñu maam Cheikh Ibrahima Fall di jottali nuyoob sëriñ bi di jottali ay cantam ak i ngërëmam mu jëm si mbooleem njabootam gii nga xam ne jàppewuñ ko mag jàppewuñ ko baay ab sëriñ lañ ko def di déglu ndigalam te di ko jëfe waaye di jottali ay cantam mu jëm si mboolem taalibe yi jataay bii ñu teew nag ak tënk la ndax dinañ def beneen jataay léegi bu gën a yaatu fii nu teew nag kenn ku ne xam ne ni gannaaw ba nga xam ne Cheikh Modou Mountakha digal na Serigne Amdi Fall ak njabatuk Cheikh Fall gi ñu saytul ko war dekk bi len aw yoon wu nu jaar tanal len yoon wo xamne ci si la ñuy saytoo liggéey boobu ba ñu si ak léegi dafa def ab diir sëriñ bi japp nak ni day jaadu bu nu ab diir mo ñu daje fi ngir jëfal ko sëriñ bi su ko sëriñ bi joxe ci ndigal ñi koy teewlu ñëpp it xamni a baangi ni mboolem ku liggéey bi masa a dal sa kawit nga xam ni lii nga xam ne moom la sëriñ bi di tere si dëkk bi ban ko nangoo sa yow wala bañ la ko aaye fii lañ ko indi ci kër maam Cheikh Rafal jébbal ko ki fi nekkal Cheikh Rafal moom moo si joxe ndigal ci ndigalu Cheikh Modou Mountakha ni nu ko gisee nag lu doy waar la waaye nag mu ne su koo ñàkk feeñal ndax dëkk bi am na ñoo xam ne ba nu fi ñëwee danu fee ñëw ngir pas-pas dañ fe ñew ngir yaakar dañ fe ñew ngir bu ngeerumul seigne touba ñoñu kenn waxu len ndax ñom waxtu ne ñi ngi gorlu ci ndigali seigne touba yi waye nak nu xamne dekk bi dafa mag ba ag fo xamne fi ñeneen ñu bare bare gane nañ te ñom bokku nok ñom pas-pas ño xamne ak mata di wala bok am lu des sinun nun mo waral ñuy jëfël lu juuyo ak li nga xamne moy bëgguk sëriñ bi ñoñi nak kenn ku ci nek ba ñu agsee fi yow am na yoon wu nu aw jëflante ko ak yow ñaar la nga yoroon te du uh, méngawul ak li sëriñ bi bëgg ñu jël ko si yow mbaa nga yëkkati ko jox nu nu andi jébbal sëriñ bi waaye saa nga nekk si leneen lu wuuteeg loola ñu jëflanteeg yow si anam ba nga xam ne anam boobee la laaj waaye lépp rek si ni ko sëriñ bi bëggee woon mooy si ak dal mooy si ak ak labirante mooy si ak masla ba yàlla dogal tey ji ñu teew fii lii nga xam ne moom lañ leen won mooy li nga xam ne moom la ñu génne si dëkk bi si diggante ba nu ko tàmbalee ak léegi ak leneen loo xam ne neexut a wone ndax loola méngawul ak loo xam ne war nañ ko wone ñëpp di si teg seen bët waaye lu mën a xew ñu xam ne ndigal li njabootu Cheikh Rafal gaa ngi si te fas yu fas yéene wuñ see deltu gannaaw li sëriñ bi bëgg moom fawu dana ko am Cheikh Rafal nag taxaw na temm ngir li sëñ Tuubaa bëgg lépp mu am ko kon nuy soññ suñ bopp di soññ ñëpp ñu xam ne bëgguk sëriñ bi mooy lu rafet ak lu baax rek ndax loolu dong lañ warloo ak sëñ Touba gannaaw jaayante gi mu jaayante ak boromam ak rasulullahi ba sanc dëkk bii muy dëkk bu ñuy rawe muy dëkkub texe muy dëkkub lislaam muy dëkk bu ñuy defaroo waaye doonu dëkk boo xamante ne bii des fee war a yàqoo wala nu indi fi lenn loo xam ne day safaanoo ak liy bëggu sëriñ bi ndax sëñ bi lim lim bëgg moom la rasulullahi sallallahu alayhi wasallam bëgg rasulullahi sallallahu alayhi wasallam bëgg mooy bëggu yàlla sunu borom foofu rek nag la sëriñ Amdi Fall yéene ànd ak njabootu Seera Fall gi nu taxawul liggéey boobu ba mu àgg fa ko sëriñ bi bëggee euh, li ñu fi génn nag gis nañ ko xam naa bari na yoo xam ne mu ne su ko wax ndax li nu mën a wone rek lañu wone waaye lépp luy xeetu ñaawteef te nga xam ne daje na noog moom ci dëkk bi taxawaay bañ sa war a am am nañ ko ba mu mat sëkk jëwriñ ñi ko doon taxaw nag ñoo teew fii fi kanamu sëriñ bi xam naa gannaaw nag won nañ leen ko li si des moom dañ koy àggalee fee muy waxtaan woo xam ne ah kilifa yi danañ ko seq ak taalibe yi si doxin woo xam ne moom lañ bëgg a wéyal ci liggéey bi nga xam ne moom la ñu sëriñ bi dénk lu si war a dolli ko nag xanaa suñu kilifa yi teew ah, ah sëriñ Fallou Fall ak ñi teew ak euh, sëriñ maam Cheikh Fall. ak Cheikh Abdoulaye ñoom ñëpp ngi ni teew ah lu ci war a dolli ko ñoom ñu dolli ko ci ak jëwriñ ñi fi teew yëpp nag waaw waaw waaw waaw waaw bisimilah Fall salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi nuyu murit yëpp di jiital ci nuyoo bi kilifa yu tedd yi nekk ci suñu kanam di suñuy jëwriñ di suñuy mag di ndokkeel mboolem mbokku taalibe yi nga xam ne nii ñoo nekkoon ci liggéey bi di ñaanal sëñ di Fall sëñ Modou Mbène mu yàgg fi loolu te wér di ñaanal sëñ Mountakha Mbacké yàgg fi loolu te di ñaanal suñ jëwriñ sëñ Amdi Khadi Fall mu yàgg fi loolu te ñu ngi jaajëfal mbooloo mi yëpp ci liggéey bu réy bi nga xam ne moom lañ liggéey waaye nag maa ngi jël samay kàddu muy kàddu sama kilifa yi ma taxawal yëpp ak mbooloom mi yëpp di wax ne ñun li ñu fi bàyyi rek mooy liggéeyal Serigne Touba te liggéeyal Serigne Touba bi li ci jiitu mooy sellal ko sellal bi nag ñun la war naka jekk ci cosaan ba léegi ci maam Cheikh Ibrahima ba ñoo ñoo mus nekk ñagu yoon wi ab ñag nag bu bëggee ñag day gën a ñagas li muy ñag ñun nag taxaw nañ temm lépp lu Sëriñ Tuubaa bëgg daal ci dëkkam bii danañ ko def ci kaw ñu wéy ci ñu wéy ci ndigal topp digle yi ñu yi ñuy digal topp ko ni ko sëriñ bi bëggee fu ñu joxañ tamit foofa la ñuy aw danañ ko def ci dal danañ ko def ci yar danañ ko def ci teggin waaye danañ ko def ci fulla ak fayda bu leen fàtte mukk ne sëriñ Touba moo gën a for dëkk bi te Touba bi jëloon nañ Serigne yóbbu ko te bañ ko yóbboo maam Cheikh Ibrahima ngi fi woon te xat dammul woon fam jaar nag ba xat dammul mu lijjanti yoon wi ba sëriñ bi dé sëriñ sëñ Basiru wax naan gannaaw dogal yàlla gi bu bu sëriñ tubaa ñibbisee ci réew mi pexey bàyyi Cheikh Ibrahima tax diplomatie boobu mu yoroon ak xereñ boobu mu yoroon ñu ñëpp ay Cheikh Ibra yor nañ ko te mën nañ ko yeewu nan yar nan nu xam nañ fi ñu war a jaar ngir lijjanti dëkk bi waaye nag nan nu may rek te bàyyi ñu te bàyyi ñu ñu doxal bu ko defee lépp tamit noonu suñu maam doxale woon rek noonu lañ fas yéenee doxale duñ jàdd fenn def len lu ñu war a def lépp danañ ko teg ci yar lépp danañ ko teg ci teggin waaye nag lépp danañ ko teg ci fulla ak fayda jaa ngeen jëf nag lépp rafet na ma matale na itam <laughs> waaye li ngeen wax rek ah, ginnaaw bu nuyoo mbooloo mi fi teew ñëpp nag fab suñ nuyoo boobu nag jëral ci suñ kilifa gu tedd gi monsieur <coughs> Cheikh Amdi Fall Modou Mbende mii ñaan mu yàgg loolu taal nag wér te ci kanamam nag ah, di leen xam ne wax ki may wax moom li suñ wax léegi rek damay wax ci turu kilifa te booy waxal kilifa war ngaa bàyyi xel sa diggante la ngay waxal sa kilifa ndax soo waxee dañ naan moo fi représenté kër Cheikh Modou Fallilou Fall kon li may wax war naa ci am ak dal war naa ci am ak teey sama bàyyi li mu wax bu ko ñëpp déggoo buñ ko dégloo xel te bañ ko dégloo xol dana yomb lool dispositif bi Cheikh yoroon ba téye yoon wi di ko doxal di ci dox dox goo xam ne ñëpp xam na ni bu rëccoon ay loxoom du demee nii mu demee mu dem nag bu bàyyi koog ñu ne ñu des feeg moom nag la sëñ Tuubaa àndi woon nag Cheikh Ibra ñi fi desal sëñ Tuubaa àndi koog ñi fi desal Cheikh Ibra possibilité boobu ngeen wax moom la ñu war a jël ci suñuy xol téye ko ci suñu kii mais yëf yi nii ñu ko ko doxee lii dana am sax mais du dox ni war a doxee dama yàlla baal nan fa lépp teg ko ci ak taalibe teg ko ci ab yar teg ko ci ay teggin te wéyee ndigalal Cheikh Ibra buñ ko wéyee rek yëf yi day yomb lool sëñ Tuubaa jox na Cheikh Ibra ndigal na Cheikh Ibra jëfe ndigal li waaye suñ ko bëggee benn benn wala ñu bëgg ko def nii bëgg ko def naa day indi ay jafe-jafe te mbooloo mi nii ñu toll mën na su leen dajale ci benn këyit mbaa wenn lenn baat rek leen mën a yor fi ñu dañ waaye néew nu carte bi kaay leen ko leneen leen kaay leen wuy si nag ngeen ñëw dajaloo su leen leen def leen rek danañ def kon ñu bàyyi xel def googu mooy lam njariñ li si toppit mooy ñii nañ leen félicité lii lii murid yee lii murid du man du sama morom nanguwuma lam nanguwuma kap nanguwuma dara murid yi ñoo jaayante yàq seen nelaw jaay seen bakkan jaay seen doole jaay seen lépp ngir bëggal sëñ bi li sëñ bi bëgg maanaam ci dëkk bi boo xamee ne danoo bëgg tëdd nag nag ñun di nelaw ci suñu biir néeg ñoom ñi ñu taxaw ci terrain bi génneel nu loolu ci biti ban man koo teg bët ni di ko wane ñooñu wares na leen a félicité war leen a jox ay fóor yu lu ngi loo a mën a doxee ci terrain bi ko mën a gën cee loolu ñu bàyyi xel loolu su ko defee suñu jógee ñoom ñen jëm ci ñoom ñooy njëkkee respecté ñooña ñu ñii bàyyi faal yee nañ leen bàyyi xel te mobilisé wu ñun ñëpp nag buñ ni rek jàpp nañ kii daa def dàngam ñu bakko bu buñ ko def mun ci téyee kenn foofu bàyyi faal nekk rek na mel ni meddi mu tëdd tan yëppay naaw dikk bu tan yi dikkee ñëppay dëpp seq koog ñoom kon nag foo nga jàpp nga jàpp foo nga jàpp jàpp fa bu ñu ko defee noonu rek ñëpp dañuy dolli respect dool dolli dëgg gi dool dolli wéral gi Cheikh Ibra dolli wër ni li lii si dëkk bi Cheikh Ibra rek ko mën a réglé mu mën a réglé wu defuñu loolu yi day dem ba yàgg day échec te bu échec ci loxol Cheikh Ibra dara desatu loolu nañ ko bokk xam nga jërul guddal nag jërul ndax la ci des moom fecc kanam la su ngeen ba ca kanam waaye loolu nag maa ngi koy tàmbal te jégalu nag sama waxi bopp rek nag waaye nag ci barke Cheikh Modou Falilou ak barke Cheikh Modou Moussa na kon àggat fële la la ilaha illallah